الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ووفى بالأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وقليله هذا وإنه أيها الإخوة والأخوات إخوتي في الدين وإخوتي في الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي ديال سوات تي يالله تي ci nammeelam waaye ci tawfiixam di jokkowaat ak bokki diine yi ak bokk yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñoom nation Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw di jaar it nag ci mbokk yi nga xam ni ñoo yore Géewul Art walla Géewul TV ci seen taxawaay ngir askan wi seen taxawaay ngir réew mi seen taxawaay ngir dëkk bi nga xam ne am nañu ku dul moom muy ba ngéew di dollee sant di dollee gërëm di leen dollee ñaanal fa ñu bëgg a àgg yàlla yëkkati leen fu kawe di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ما دام الفلك وحركاته والعرش وسكناته تهية طيبة وزيارة وتهنيها وتفقدا على أحوالكم في السراء والضراء nuyoobu tedd bu sell di ziyaare ñëpp nag di leen ndokkeel ci bisu ajjuma ji di seet seen jëm di seet seen wér-gu-yaram di leen massawu ci coono yeeg fitna yeeg naqar yeeg jafe-jafe yi di jéggulu it nag ci àq boo xam ni xëy na mataluñu ko walla jéggi nañu ko képp koo xam ni yàlla rekk moo koy xam waaye nag di sant nag di gërëm di kañ boroom xam-xam yi yàlla dogal ñu nekk fii ci senegal ñuy ay bokk di ay doomi soxla di leen sargal di leen tatagal di leen ñaanal it yàlla yàlla barkeel xam-xam yàlla yàlla barkeel taxawaay yi yàlla yàlla ubbi suñuy dënn ubbu dënnu mbooleem njaboot kii ba li ñuy wax yàlla sëmbërsal ko ci ñoom dafa leen fataxan mu biinan ni mu ko defale woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci inna fatana laka fathan mubina mu mel na nag amuñu lu dul nag boroom xam-xam yi ndax ñoom ñoom ñooy dinaamo leer yi ñoom ñooy jantu njub ñoom ñooy jantu gindiku ngir mboolem askan wi yonent bi sallallahu alayhi li mu wax ni al ulama walla boroom xam-xam yu waxoo al ulama warasul yàq boroom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yi loolu tax nag yàlla yëkkati seen mbir kaweel seen daraja alxuraan rekk mu ngi wax naan qul hal yastawi alladina ya'lamun walladina la ya'lamun alxuraan léeg-léeg mu laaj laaj boo xam ni alxuraan ak li muy yàgg-yàgg léeg mu laaj te mboolem yi ma laajoon ba léegi si tontu amu ci hal yastawi alladina yalamuun walladina laa yalamuun alxuraan day wax ci boroom xam-xam yi bu jàgg mu ni mu ndax nañu seet suñu xel seetantal dawal sunu bët wala ñu jël suñu tànk topp àddina bi xool ba xam allazi hal yastawi lazina ya'lamun wa lazina ya'lamun ñi nga xam ne dañoo xam est-ce que ñoom war nañoo mën a yem ak xam xamul ci fànn gu mënti doon nag Sénégal xam nga yàgg nañoo wax sëriñ si waaye yàgg nañoo wax it yi waaye ki jiitu yore xam-xam ni ñu ko war a dégg feeñ na ci jamono bii nga xam ni musiba bii nga xam ni mooy feebar bi yàlla feeñal ko ndax ku ne xam ni tarixa yaa ngi fi mbooleem yeneen kuréelu diine yi ibaadu rahmaan ak jamaatu falaa ñoo nit ñi ngi fi yeneen it diine ñi ngi fi yeneen i kuréel nga xam ni kenn mu ne lim ñi ngi ci Sénégal kenn ku nekk sa mbooloo nga ànd ak ñu gëm la wóolu la nga jiitu ñu sa ginnaaw waaye xoolal rek cër bi nga xam ne moom la yàlla jox médecin yi ak daraja ji mu leen jox feebar bii tey képp ku nekk Sénégal mbaa nga nekk bitim réew rek léegi médecin mooy sëriñ même gouvernement bi nga xam ni Macky Sall moo moo moo gën a kawe ak gouvernement médecin yi ñooy seen sëriñ te médecin yi ñooy xool xam li feebar bi laaj ci daw li mu laaj ci moytandiku li mu laaj ci ci ci ci ci ci wax ko gouvernement bi ñoom ñu taxaw ca gouvernement bi diisoog sëriñ si ñu muy soog a àgg ci talibé yi yi nga xam ne kon fi ñu toll nii tey Sénégal médecins yi fii ne ñoom ñoom la yàlla jox euh, kóol bi ñoom ñooy sëriñu jamono nag ci feebar bi noonu ngay wëree nag leneen lu mu doon nag ña yàlla jox xam-xam ñooñee ñoo cay sëriñ euh, alxuraan di di wax ni إيه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ندخ نخم وارن يوم أنك يامك نخم دي دي دنيا من دنيا من دنيا من يامك القرآن وحدني إن ما شاء الله من إبادي العلماء نحن نرجع يلا بوكو دي سيت موي جام مي خامني نيوم خامنا يالا خام نوي بروم خام خام نيت مونت راغال لوم خام نيت لوم ديم با ديكو راغال رك dafa xam danger bi kon képp koo dégg muy wax ci feebar bi képp koo dégg muy moytandiku loo rek dafa xam danger bi ci nekk ak jafeñ-jafeñ bi mu mën a indi ak li mu mën a indil ci lool dégg naa borom xam-xam yi koy étudier di wax naan maanaam crise sanitaire la indi crise énergétique indi crise économique war a indi nag crise sociale yooyu nag benn baaxu ci nag kon réew mu mu doon war na yoo fab borom xam-xam yi am fu ñu leen teg mu ni nag alxuraan ni nag ni ci beneen ci beneen fànn ak ci yeneen i anam euh, euh, contexte beneen kamala sawi fi dunya wal axira nee na àddina ak laaxira al ama wal kiy gis yore ay bëtam du bokk nag ki silma wala zulumat wala nuur nee naka noonu it leer nee na jamais mu am yem ak lëndëm نينا ولا ولا الزل ولا الحروب بغا واختاني نك غا خامني داني تي مستوتي رك ايات بينات انزلت من عند العزيز الحكيم نينا اي اي يو تيد يو لير غا خامني بايوكو وول كي منيف خنا رب العزه موي بروم سبحانه وتعالى بروم بوبو نك القران بيمي واتش yàlla bi muy concevoir alxuraan bi xam nga mënoon na ko tàmbalee ci baat bu ko neex xoolal ni mu fonkee jaamu yàlla nga xool yàlla ni mu fonkee tawhiid nga xam yàlla nga xam ni yàlla ni mu fonkee diine yàlla ni mu fonkee imaan yàlla ni mu fonkee doomu aadama ak ni mu fonkee eh, li ngay wax moom mooy ihsaan te mooy rafetal goo xam ni kii rafetal yàlla rekk a tax muy rafetal neen na xoolal yooyu yëpp benn bu ci nekk rek mënoon na caa jël benn baat li jàngalekat yi di wax naan un mot clé mënoon na ko jël rek tàmbale ko waaye yàlla yi ngi fi bàyyi yooyu yëpp nag daal di indi baatu iqra iqra bismi rabbika alladi xalaq yàlla baatu iqra nga xam ni mi ngi waxanteeg yonent bi salaa sallam ci kalame jibril naan ko iqra jàngal yonent bi sallallahu alayhi njàng du woon mbaaxam xamuñu woon loola ummi yu la koo xam ne nii jàngul mu ni ko jàng jàngal ndekete yoo moom ndekete àddina moom moom moom lu mu mënti doon ci xam-xam rek lay mën lay mën a bàyyi yàlla dal di jox eh, daraja alxiraatu te mooy lecture al kitaabatu te mooy écriture al ilmu te mooy science ak ak enseignement ak loolu lépp lu jëm ci éducation te mooy taallumu wa taalim ndax lépp luy diine ci àddina xam-xam mooy ndëgër laay la xam-xam moom moom moom moom moom mooy secret diine ji xam-xam donc moo mën a gindi diine ji nee na nag rawatina nag diine lislaam nag yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko iqra bismi rabbika allazi xalaq na nanga na jàng te booy jàng nag dafa am nooy jànge te mooy bismi rabbika lazi xalaq te bismi rabbika euh, boo xoolee baat bi bismi yàlla dafa indi baa bismi indi benn arafu jar arafu mooy araf boo xam ne ni su duggee baat su duggee tur tur boobu terminaison bi ci suuf nga koy maas léegi arafu jar boobu nag baa boobu nag moom moom mooy alxuraan waaw bismi rabbika bi mu wax baa boobu mooy mooy jëmme alxuraan yàlla boo seetee noonu alxuraan ni mu wàcce ci ñun ak ni ñu ko jànge dañu naan 114 saar téeméeri saar ak ak ñeent yooyu yépp nag secret saar yooyu mu ngi ci mu ngi ci fatiha secret fatiha yépp nag yàlla def ko ci bismillah rahmaan rahim boko koy seet bismillahi rahmaani rahim mën nga ni ñeenti baat la waaye sekkari bismillahi rahmaani rahim ngi ci bismillahi rahman adjectif la mooy mooy day wax yàlla mooy kan rahim it yàlla mooy kan waaye sekkari bismillahi rahmaani rahim bismillah bismillahi bismillahi moo tax rahmaani am doole moo tax rahim am doole moo tax fatiha bi am doole moo tax bi am doole léegi boo nee bismillahi nag sekkari bismillahi mi ngi ci baat bi bii kaana maa wa bi yakunu maa yakunu képp koo jàng alxuraan wala nga jàng ab saar wala nga bismillah rahmaan rahim ci mu mënti doon baa bi taxaw na ni la nag lu mu doon ci man laa xoolal booy bind booy bind mënoo mënoo bind ci jaww noo mën a def rek da jël sa baaraam nga teg di nga jël plume nga teg di jël stylo nga teg waxtu woo jëlee stylo nga teg rek baa bi baa bi ne man man maa ngi pare naa man di xaar ba xam li nga bëgg nga xam ni araf yi araf bi nga xamni ci ci làkk wu ti doon la moo xam français la mo xam anglais mo xam mo xam mo xam arab la ara araf bu mënti doon mëno ko bind te tegoo solo loxo te foo tegee loxo bi rek baa bi daal judd imagineel nga jël sa loxo ni rek ciap ko ci daa wala ci encre rek nga jël ben feuille blanche rek nga teg ci loxo bi da gis mu nek ben tom tom bobu moy baa bi baa bi ne la man pare ma maa lu mu doon maa la jur léegi nak baabu boko bindé bindee yaay yaay xool li li nga jublu soo ñodee mu wàcc muy alif soo wërngalee wàcc muy waaw soo junjee ñetti yoon langal muy siin ngëm lem wàcce muy miim nga xam ne araf yëpp nag baa moo leen jur borom xam yi nag nekk baa ba mu juree araf yi kon moo waroon jiitu te boo jàng naa alifun baa un taa un saa un ñu ni lu tax arab bi jitulul alif bi jitulul ba bi xana alif bi jitu ñu ni yàlla ci bopam mo jox ter alif ndax alif aliful kitabati wa huwa ba'du urufiha wala ma alal jami taqaddama nee alif mom yàlla da ko xool rek xool alif yeb gis mo ci gëna a yàlla delu nag ci ni mu bëggee e dina siraatal mustaqim ni bëgge bëggee ak na njub toll ci doomu adam ak njub la mu fa mën a jële doomu aadama ak foo ko mën a yóbbu ni mu ko mën a aare yàlla dina moo tax ma jiital alif yëpp nag ma dénk leen alif mboole yi ci alif arab yi ci des yëpp alif laa leen dénk moo tax saa yu boo gis rek alif moo jiitu arab bu dee français gis nga a bi ni mu jiitoo nga seet beneen toujours rek seen seen a moom mooy moom mooy jiitu nag léegi nag naka noonu nag muy dem di dem di dem liko ikhra ixra bismi rabbika lazi khalaq xalaqal insana min alaq na nga jàng sa turu borom borom bi nga xamni mo bind kon xam-xam warna xamal xamal xamal nit ki ki bind moy kan xalaqal insana min alaq ci lan lako bind iqra wa rabbukal akram boo akram borom xam-xam ñi génne lépp lu civilisation foofu allazi allama bil qalam boo qalam rek yaangi tuddu yaangi tuddu écriture allama al insana ma lam ya'lam mu xamal doom adam lu mu lu mu mësul wona xam lu mu woni woon ni sax dana ko mas a xam gën sax mosu ko def kan xam ni kon science ak découverte ak yooyu yëpp mu am moo borom xam-xam yenn philosophie di wax naan amna ñaar ñu doon werante

seen ko fekkoon na ko muy muy ñëw moo ko nag léegi nag loolu moo jëkk a wàcc ci alxuraan léegi nag mu ne nag faas ba ashraba maa yuqaddimu bàyyi sonn fi buxusihim wa taalifihim boobu nag borom xam-xam yi nga xam ne nag ñoom ñoom ñooy ay nit yàlla yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla wërsëg ragal yàlla ca lañu tàmbalee nag di gëstu ci alxuraan di ci di ci di ci def seen taalif di ci bind di génn ay secret ci ci fànn gu ne ndax rien que pour rek doomu adama na doomu adama mën a jëriñ yàlla jógee foofu ci alxuraan daal duggaat ci beneen saar bu ñu wax alxalam daal di ne nuun wal xalami wa ma yasturuun yàlla xoola li mu gën ci alxuraan yëpp bu ci nekk giñ gu ci nekk rek day teg seen yàlla bu giñee day day tekki ni li muy bëgg a wax da ko fa da ko da ñor wa samaa'i wa tóori wa leyli wa shamsi yooyu yëpp ay ngiñ la waaye bi mu ne nuun wal xalami uma yasturuun nag borom xam-xam ñu ko seetee dañuy nuun mooy daa ji ji kiy bind di binde alxalam neen mooy xalima gi uma yasturuun mooy lépp lu lu lu lu ñu bind lépp lo xamni dañ ko bind budé walu yàlla lépp lo xamni yàlla ci bop moko sos moko créer nga xamni ni biha tamjidan wa tashrifan li sha'ani al katibina wa rifan min qadri ahli al ilm wal ulama yàlla dafa dafa gën ci nun nun c'est l'encre wal qalam c'est la plume maestro moy création yi lépp lu yàlla créer mu ne nag yëkkati daraja yi xam-xam yëkkati daraja yi boroom xam-xam moo tax yàlla giñ foofu giñ nag nee na fa fil xalmi bayaan kama fi lisaani wa fil xalmi tibiyaan mu ni ñett nag dañoo bokk jubluwaay mooy làmmiñ wi li muy wax mooy xalima gi li muy bind ak xol bi waaw bëgg-bëgg doomu aadama réaction lim bëgg woné lépp ci digënté bobu la jóge ci xel mi jóge ci xol bi dem ci xel mi jóge ci xel mi dem ci xol bi lélé mu lamine tuddu ko leeg day préféré dem ci xalima gi bind loola ñu soko xam ki li ci biiram ak li bëgg a lan la yàlla di fofu dara jey xam-xam ñu am ci benen déggin nak ndax gannaaw yonent bi sallallahu lay waxal ci moom la jëm si ma anta bi ni ni'mati rabbika bi majnun gannaaw dañu ko dañu ko askane woon ku wérul dañu ko askane woon koo xam ne nii nitewul moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wallahi li ñu lay askane ñàkk wér ñàkk nitee sori nga loolu day sori nga ko yow danga nekk ci xéewal yàlla yoo xam ne nii xéewal yooyu sori naag loolu lañ lay askanale mu ne ko wa inna laka la ajran xayra mamnun mu ne nag nag dangaa am yool boo xam ne nag moom jol bu dul bu dul bu dul dog mukk mukk mukk mukk mukk ndax yonent bi sallallahu alayhi ni ko yàlla defal lépp nag soo ko indi nag ci baat bi nga xam ne nag moo sew te mooy wa innaka la ala xuluqil azim mu ne ko bu dee jikko ju kawe bu dee jikko ju rafet bu dee ji jikko ju wéet nden nee na nee na nee na moom moom la yàlla defal nee na te boroom xam-xam yi dañu ni jikko yonent bi sallallaahu mooy xam-xam bu mu jëfe mooy ak lewet mooy ak mooy kersa goo xam ni amul dayo mooy jàmm yàlla gu gu gu sax mooy ak tabe goo xam ne ni amul moroom mooy ngërëm ak mën a muñ lépp lu bàyyi ko ci yàlla ak it nag di gërëm ak toroxlu goo xam ne nii te yooyu yëpp nag mën na ko ci bañ a yàlla ak li ko yàlla wax moom yëpp boo gisee eh, suratu fata eh, kii inaa fatahna laka fathan mubiina liyaghfira laka llaahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta'akhkhar inaa fatahna laka fathan yàlla yàlla ni ko nun noolu ubbee noonu la defal fatu fatu gu bér fatu gu gu gu yaatu goo xam ne ku amati fatu ci ci sa fat bi la la tànqe yàlla yi niñ bëri yonent bi ba mu ñëwagul yonent bi ba mu ñëwee ba mu ñëwee ba léegi sii ñu ci yàlla buy dikk dafa root ci teenam bi te taxul sax mu mu as toq mel ne la nga la muy bari bari la muy yéeme yéeme dafa mel ne as toq la ca teenam ko mu ni ko nag euh, yàlla la ubbee dafa la fatuxan mu bii na ngir rekk lan ngir mu jéggal la xam nga bu ko ni woon mu jéggal la la paase kon xel yëpp dañ ko nangu waaye nag la passé ak li ñëwagul li jëkkal ko lu ñëwagul nag kooku nag beneen daraja la beneen considération la beneen maqaama beneen ngëneel bu ko yàlla defar moo tax doomam sayyidatuna Fatima bi mu gisee yonent salaam day jaamu yàlla ba mbagg yi day diis ndax euh, saabatu rasul ak ak ñoom ay arab la woon yoo xam ne ni ñoom seen seen mbag seen mbagg moo daan dañ daan am mbagg yu yaatu seen doole yëpp muy seen mbagg yi seen tànk nag moo moo doon nekk nekk nekk yu sew la ngir rek préparé gi leen yàlla préparé ci xare yeeg yu mel noonu te eh, daan jaamu yàlla be tànk yi néew yi jaamu yàlla dem ba du ko mën muy jël seen tur di di di takk di takk biir bi ndax xiif bu ko sonal ak maat bu ko sonal doom ji nag ni ko nag atatakallafu hada lii nga teg sa bopp xanaa du yow yàlla di waxal way ne ko laa la xulqi lalim xanaa yow di yàlla waxal li yaxfira ma taqaddama min zanbi wa taxa ah yàlla na la ak ubbee ngir jéggal la la weesu ak li ñëwagul xanaa du yow yàlla waxal mu ne ko afala akuna abdan shakura ni ko waa doo loolu yëpp ko yàlla defal xanaa warutu waroo nekk jàmbuy sant ci lañ soog a xam ne kon li muy sonn yëpp li ko yàlla defal la bëgg a sant te xam naa ne mënu ko sant loolu baatu alhamdulilahi rabbil alamin léegi nag yonent bi salaa salaam nag alxuraan jëw nag boroom xam-xam yi wan ñu alxuraan ban daraja la am alxuraan nag wëlbatu wan ñu nag ban daraja la boroom xam-xam waxoon nañu ni هل يسوي الذين يعلمون والذين يعلمون ني بروم خم خم تي القران لا ني روتي دوم ادم تي لا ني خامي دوم ادم درجه بو يالا دي ولخات كرمنا بني ادم دي نيو تيرال دوم ادم تيرانغا دي موي لا تيرانغا دي موي لا تي نيت بو سيتلو لي يالا واخ دي اندسكور لي والوالديك boo bu boo demee ba gim sa xel gimmi nga xool lii la yàlla defal ci fànn yëpp nag waaw ci wàllu bind ci wàllu xéewal ah ci wa ci wàllu ci wàllu mucc ci wàllu xam-xam ci fana façon bu ne waaw ci science ak mboolem lii la yàlla defal yëpp boo ko xoolee yàlla nee na anushku lii wala waa dégg nga sant ma teg ci sa ñaari wajur ndax gannaaw man ñaari way jur ci la la jaar motax borom xam-xam di wax nan ku mel ne Omar bi daf ñu wax toujours ni yàlla day fi mu tegg way jur boo ko ci xalaatu xel xalaatu doomu da nga nan yàlla day su doon am ku ko wéttali way jur lay doon yàlla day su doon am ko jàppale way jur lay doon yàlla day su doon am ku muy àndal way jur lay doon yàlla su doon am ku muy disol way jur lay doon ndax fi ma ko teg tegu fa keneen motax doom doomu nak wala fonk way juram xool ko bët teg ko foo xam ne nag eh, ku ko gis na xam ne kii am na fu mu teg waajuram boo boo ci dul amoo am dara dul ngërëm yàlla sax mu jar ko borom xam-xam yooyu nag ñoo ñu indil teraanga doomu adama alxuraan ci alxuraan la ñu ko rootee te teraanga doomu adama bi ci jëkk mooy al insaniya mooy nite nite moom bu amul rek doomu adama mënut a mënutuloo taxaw amatu fa moom. تي الإنسانية لتعلقي وتقلقي غير نتجي مولي ديمري غمانو جوكو تي يالا خامني دوم ادم فوك مام فمو اجو تي فيغا وارا جيك اجو نك فيغا خامني مو جارا اجو نك تي جاركو دغ دغ موي غا اجو تي يالا موني موم ناي واخ غا جيبول سي بروم بي سبحانه وتعالى لتعلقي اك لتخلقي ngir da nga jikkowoo nag jikko yi nga xam ni moom yàlla jikkowoo ndax yi ñuy wax yëpp bu dee mandute jikko yàlla la bu dee sàmm jikko yàlla la ci bari jikko yàlla la mu bëgg nag jàmm bi root loo mën ci jikko yàlla li ñu bari bari ñu ne 360 jikko ñenn ñi ëpp na ko loo ci mën ti root soo ci mën a am fukk baax na soo mën am 50 baax na soo ci man a am 100 loo ci borom root rek jikko yooyu nga am ko ci borom bi subhaanahu wa parce que day day gëna a dëgëral sa insaaniya sa nite bu ci moy ruh yàlla alquran mo xamal ni ruh nekkate mom la yàlla tereel do aadama ndax leneen lu am ruh boko xolé am amna fo xamni xam ne fa la wute lil mawt wal hayat ki jëbul ci yàlla tey nag di jikko di sét yàlla ngir bëgg ko xam ci jamono bu ne donte xam yàlla yombul waye fa nga ko war a mooy ci ay kéemtaanam ci li bind kon soo xamee ne insaan yi am nga nga jéem œuvrer pour bokk ci kuréel googu ruu nga xam ruu lan boo ko jóg foofu fi nga xamee ni nit moom ak noo mën toll ak foo mën jaar moom dund gi dee ci topp ndax dund gi dee ko jiitu woon xalaxal mawta wala xayaata boroom xam-xam yi dafa ci jaahiliya daf ci am ñu doon werante ganaar ak nen ban moo jiitu werante bu yàgg lool fu ñu werantee rek dañuy werante ba sonn rek bàyyi waaye kenn mënta yee sa ndax kii ni ganaar mënta jiitu ndax nen mooy toj mu doon ganaar kii ni waaw déet nen kay mënta am te ganaar amul ndax ganaar mooy nen muy dëkk débat boo xam ni àddina ay borom xam-xam yag nañu ci wa bi alxuraan ñewé nak ni khalaqal mauta wal hayata jital de yàlla de la jëk bind sokke cee di dund ca leen jëlewaat ni kon nañ jital nañ be mu am feneen fuñ sukkandiku feneen fuñ sukkandiku ñu ni fi ñu feneen sukkandiku feneen moo di ni yonent yàlla musa ci waxante gi mu doon waxante ak borom bi subhanahu wa taala dafa ni ko benn bis mu laaj ko ni ko yàlla lu tax doo am doom yàlla ne ko dinaa la tontu mu dem ba fàtte yàlla ni ko dangay dem ci montagne bi yaa Moussa loo fa fekk rek nga dencal ma yéen ci yàlla Moussa dem ci montagne ba fekk fa benn nen mu jël nent bi dem denc ko di ko denc di ko denc ba xëy benn bis rek yàlla ne ko musaa li ma la dénkoon jox ma ko Moussa dem fa mu dencoon gisu ko

bi ma incarné xanaa dana am bu ñu toll mbaa bu ko jógee Moussa su ma amoon doom si su ma ko tàllalee xanaa bu muy xëy mori ko ko si su ko tëree ba ma ak du ko te loolu borom xam-xam yi pour nit dama xam a na mu ci xëy ci àddina bi rek doom na mu mën a jariñ ay waajuram waaye xoolal doom nag na mën a lore ay waajuram yooyu yëpp nag ak njàngale boo xam ne ni yàlla jaarale la fi anbiya ay ak rusul yi pour doomu aadama xam fan la war a mën a teg boppam war a mën a teg njabootam fan la mën a teg war a war a mën a teg yàlla mu ne ko bi ci des mooy al aqul mooy xel gis nga wala fi dañ naan xel teen bu xel xel root تن خل تن بخل قص خل من دشارون خل من دشارون ولا في دين يخلون يقول ليه بو خالد موقعو نحن توك في رك خل فسي ما ما تكاد دم أمريكا ولا نعم ما تدم إيطاليا فانا فانا كون من قطع ليك سان زي خل فوف مودا دم ليك نعم فيزيت خل مي فيزيت بوم نخلا نعم دكان لف توريزم جوال خل موقعو نعم خل ما منك لتفكري وتمو يوزي yàlla defu alxuraan nee na yàlla nga ko defal doomu aadama ngir rek muy xalaat nag ak di sette saa yoo xalaatee rek fexeel ba génn résultat bi li ma xalaat lii la te mu doon lu positif muy li nga xam ne loolu moo moo war a nekk loolu yëpp di teranga bi yàlla defal doomu aadama bi ci des mooy al ilm mooy xam-xam li tawhidi wal ibada xam-xam ci la nit di xamee yàlla waaye leneen lu mu doon ci àddina nag li ko yàlla defal ci àddina yëpp nag ci ci ci xam-xam la ko xam

wal ibada ngir des yalla xamni ndax bu def nit bu day def recherche ci gu doon la ngay rek après recherche yi boo trouvé li tubaab ki trouve trouvé nga la nga trouvé boo xoolee rek da nga gis yàlla su ko defee ibada nga fa rek sukkandiku ci loolu xam ne nga war a jaamu yàlla nga jaamu bi ci mooy xol xol nag booy lépp nag moom ndax xol moom yàlla nee na xajuma ci asamaan juróom-ñaar xajuma ci suufu juróom-ñaar waaye xal naa ci xaj xaj naa ci xolu jaam bu ma wéetal jaam bu ma gëm di ma sell yàlla wax ni ni xol nag mooy mooy li muy tuuti tuuti nag su ma xasee dugg leneen du su ma ñëwee fekk fi dara it du ma dugg su ma fa nekkee lu ma fa nar a fekk man am naa mbaaxu am naa waaye fu génn bàyyi ko yàlla ci boppam lil imaani walit mi naan nga xam ni kon ngëm yàlla tax yàlla moom moom la doom alxuraan wax ni mooy war a nekk ci xol doomu aadama bi ak ànd ak dal nag waxoon naa ko keroog suñu waxtaan keroog bi des mooy an nafs mooy bakkan noonu bi gën a mag bokk ci noon yi mooy bakkan doomu aadama bari ko am na naqari sa bakkan rek moo la ko teg du kenn li taaddubi wa ta wa taazibi xamal alxuraan xamal ni bakkan moom dañu koy yar wa nafsu wan borom bu bu bu burd dafa ni wa naf wa nafsu ka tifli in tu'mil ushab ala xubbi raday nee na bakkan nee na moo xale bi namp ñooyam dañ koy xëy rek nga xam ne kii war naa fer nga fer ko waaye foo ko ferul day continuer di namp bakkan it day nur ci banex nur ci mo yalla ya ko ci meuna feral nak soko ci ferul mom mom ci lay ci lay mag ci ci lay mag bi moy al ma'arifa te moy xam xàmmee xam-xam bo xam day day ànd ak surtout nak ci walu yalla li taslimi wa tasfit wa tafwidi ngir nga jébbal sa bop yalla ànd ak nangu mbolem ay dugalam bi ci moy mooy tu yep nak ma ngi lim teranga yi nga xamni mom moom la alxuraan génneel doomu adama pour mu war ko xam andi amatu moy xéwal yi yi la yàlla defal xéwal bi gëna gëna mag yi ma lim yëpp ben ci xéwal la way al insaniya bu amé xéwal bi ci gëna mag moy xewal diini ndax mo lay jaarale fi ngay fi ngay jaar ba am jëm ci yàlla ne animatu lil hamdi wa shukri ngir nga mëna sant yàlla ak ak kañ ko ak gërëm ko mu am nak li ñu tuddé al imtixaan muy examen doomu adama alxuraan xamal nako ni fo meuna jaar da nga jaar ci examen fokk nga jaar ci ay épreuve te épreuve yoy nak yàlla da nga ci sàkku sa muñ di sàkku it nak ngeureum loy loy nangu loy nangu dogalam bi gis moy ay taqwa moy ragal yàlla ragal yàlla moy tax nit ki am toroxlu toroxlu akit nag euh, suufeel sa bopp doyadal sa bopp bañ a bañ yaakaar lenn ni lenn nga ci kanam mbindéef yi wala lenn nga ci kanam yàlla alxikmatu alxikmatu mooy sagesse mooy xikma du xam-xam bu ñuy jàng ndax alxuraan moom xamal ni yooteel xikmata man yashaa ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا xikma yàllaay seet ku ko neex rek mu xéwal ko te mooy nu mu tuuti tuuti rek mën naa doon benn baat mën naa doon leneen nga xam ne bu ko nit ki waxee rek ku ko dégg rek mën na jur njëriñ njëriñ lu bëree bare bare bari bëri lil fadli wala adli xikma nag ci la nit di xàmmee ngëneelal yàlla ak màndu ci yàlla ak xolal xamal ni doomu aadama war naa bàyyi xel yàlla ndax di di jëflanteeg moom ci ngëneelam di jëflanteeg moom ci ci ci màndute te li yàlla di jëflanteeg ci sa ci ngëneelam moom nga gën a xàmme yàgg naa ko leeral ci jumaa ji ngëneelal yàlla ak màndute yàlla ngëneelal yàlla man ne damay wax toujours ni ki am xam-xam nit ñi mën nañu xam ni ki am na xam ki am alal nit ñi mën nañu xam ni ki am na alal ki am taar nit ñi mën nañu xam ni ki am na taar ki am doole nit ñi mën a am xam na am na doole ki am mbooloo it nit ñi mën a xam ne kii am na mbooloo yooyu mooy nga ne li nga xam ne mën nga ko xàmmee li nga mënta xam nag mooy mooy maandu ci yàlla mooy li nga xam ne yàlla koy jëf te doomu aadama mënta comprendre science aussi àggagul ci mën a expliquer lii li nga ko waral te mooy ñaari seex yoo xam ne nii dañoo juddoondoo kenn ki dund kenn ki faatu doomu aadama mën mënagul a xam li waral loolu ñaan ñu bokk ndey way ki yor alal lu xaaj ju jeex ke du yor da wala ki nek borom xam-xam ki xam da wala ki nek ku am yaram ku ki ke nek ku wala ki nek ku xex ki nek ku bo xolé ci fànn gogu ci adina mën nga ci gis lu xaaj ju jeex lenn lu ci nek lo nak jëflante yàlla la ci ci ci ci ci ci manu tem la bi ci des mooy almasiya almasiya moy moy moy moy moy mooy li ñuy wax mérite مزيه يلا موكا ديفال دوم ادم تي تي تي تي خيوال اك تي اك تيرانغا غير دوم ادم يت خم تيرانغا خم تيرانغا يكو يلا ديفال اك لاور تي تيرانغا يلا القران خم ني يلا مي دوم ادم مون الجسد دوم ادم لوكو تاخو جوك مومت اك فان لا جوغون اك اك لان فان لا جيم موي البلا والبلا بلا ci suuf lañ ko mas balaa ñu mas ko ci kaw baatu arab noonu la yéeme da gis benn bat boo ñoo bokk araf ñoo bokk nu ñu leen di bind waaye mas dong moo leen di wute balaa ku ne xam ne lu lu luy balaa bilaa mooy rab doomu aadama fii mu ngi dund nee ñu mu ngi ci diggante balaa ak bilaa di diggante balaa ak bilaa su dee nag ci lay soog a dugg ci bilaa te mooy rab الخلافه دوما دوما افران مونا خمالني نيك جيبو نيك تي كاو سوف نيك في ريك ني ريك يالا بويل كو ني ريك انا ما خلمناكو ابصر ديدي يالا نغي جوبلو غير ليل وراثتي ورعايا بيمو واخا يونتال ادم نيكو دفنا لا سما كوتاي كون دوما ادم بو مونتي دون داغا وار تاخو تاخواي ادم بوب xam ni nekkatul ay doomam ak sëtama ak ñi ci topp ñëpp kenn nekkatul mais jamono bu ne ñuy dund di ay doomu aadama ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy kuutaale yàlla ci kaw suuf te kuutaale yàlla ci suuf su kaw suuf mooy ki nga xam ni moo war a sàmm li yàlla li ko yàlla booleel te li ko yàlla booleel yontal adam yàlla di ko noonu gis ngelaw li léew na ko sàmm bu baax a baax fexeel ba bu mu polluer te li tax mu polluer yaa ko ciy def ki dajale ay mbalit fee duur ko ci ci ci mbedd bi du ko jël mukk lu mu am rek sotti ci mbalit bi kee fu mu rek sotti ci mbalit bi fu mu dajalee ay yu kenn xamul rek sotti ci mbalit bi gàllankoor nit ñi yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp ay ay àq la te doomu aadama dëgg dëgg dëgg dëgg dafa war a taxaw ngir ngir loolu ba loolu ba parce que nena na adam yontaal adam niko ngelo li ngay noyyi ni so demee bam mu am benen xet gu bokul ak xetu xetam pureté bi nga xamni mo la def ci ngelo li so demee ba changer ko indi ci lo xamni ni do dafa su baba yow lay jëkkaloor yow lay jëkkaloor kon nang ko sam kon war na borom xam-xam war na wat set xel delu su wat njangalé yalla ak yalla ak do yonte adam ni ma ko wutale ci ci kaw suuf waaw الكوتي اللي تكاو صوفوا عاود على لي بلوكي عاود صوفوا وقعوا لاقي الخلافة بوبنا موي سيت بالك موتي موتي غنا موتي غنا نيك بوين بي غنا غام صور نداخ داي تاو خد تخواي دوم ادمه تي كاو صوف واخنا نغلاو لي مونيكو غيسنا با ايمي ييغا غيس جو تخوالو دي امدو يو تي جيرينو امدو يو خن نغلن باي تي الله بي ريك في خلين بو بو بو لوت بو فيبر بو خيف بو مات yàlla bàyyiwul dara ak adam yi mu ko dénk ñun li ñuy pasar pasaree ñi nga xam ne moom moo ñu moom la ñuy yàqate nga xam ne toppatoo wuñ ko lu mel ne ay bien public nga xoolal fii rek bien public xoolal amuñu culture bien public loo xam ne ñëpp a ko bokk yàqate rek amul kenn kuy sàmm amul kenn kuy sàmm loolu moo ñu yóbbu ba bu ñu accès ba ci jamono yi nga xam ni dem nañoo dem a dem a dem ba lu mel nii xew ku mel ne feebar bi jàngoro joo xam ne fu ne ñu ngi ko wax fu ne ñu ngi ko fay wax kenn xamatu def gis nga fi mu fi mu yóbbu réew mi gisu doomu aadama fi ñu toll yooyu yëpp nag li mu laaj li mu laaj ñëpp a àndandoo war a àndandoo jox ko bu dee xeex ñëpp war a àndandoo ci xeex parce que bu ñu ko xeexee ba ba vaincre ba vaincre ko rek kenn ku nekk la nga nekkoon nag ci mën delluwaat te nag nit war naa xàmme nag li réparable mu éviter ko. li nga xam ne nag mën nga koo dabaatal nag kooku garaw waaw li nga mën a dabaatal muy ren di déwén mën nga ko dabaatal mais li réparable la ak li nga xam ne mënutoo ko dabaatal nag loolu mooy problème bi ci yooyu la war a taxaw nag ba lenn lenn lenn lenn bañ ci am te loolu xilaafa gi eh, moom moom moom rek moo ci mën a dimbali moo ci dimbali doomu aadama léegi ci teranga gi nga xamni mom la yàlla defal doom aadama bo demé ci sar yi ci suuf saar mi tini wa zaytun wa zaytoon sinin dan la daañu laqad xalaqnaa al-insaana fii ahsani taqwiimin summa wa asfala saafiliin بعد بعد بعد الابتداء بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة xam nga waxoon na sànq ni yàlla bu dee giñ rek la muy bëgg a wax da ko ñor day day lu capital lu am importance moo tax muy giñ mu ni barab yu nga barab yu tedd ay barab yu tedd ay place yoo xam ne nii yàlla ci boppam moo leen barkeel yàlla yàlla daf leen tudd ci saal boobu wa tiini wa zeytooni wa tóori siniin وهذا البلد الامين بيت دون بيت المقدس جيرتالو تودنا مكه المكرم تودنا من المدينة المنور في سالبي كينديكي تودنا مونتاني جبل تور تودنا نيار ييغا خامي نك ньо غنونا تيد تي نيوم تي موي موي وتين موي بومبي اك زيتون اك اك اك ديو ديو زيتون gis nga kurus Zeytoun dara ji di mam importance bi ma am ak yaakaar di mam wa azimi manfaatihima wa axsama bil ashraf suma al ashraf suma al ashraf len li nga xamni mom la yàlla jël al mukarram rew mi nga xamni fofu lañuy baye pom fi nga xamni fi lañuy baye bayee Zeytoun fi nga xamni mo jabaru tour montagne bobu yooyu yëpp nag bu ci gën a tedd sa morom nga liggéey mu ni yàlla dafa génn ci li ci ci li gën a tedd tegat ci leneen lu tedd tegat ci leneen lu tedd di gën lu tedd jawaabul xis bi dafa am nag yàlla fu mu génnee rek boo demee ba ca biir nag gis nga day daanu maanaam day dangay xam li tax mu taxoon mooy génn mu ne laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim waaw xam ne ko ni ca dëgg dëgg dëgg daal wallaahi daal ñun daal bind nañu doomu aadama ci ci ci anam bu rafet ci bindin bu rafet muy lu doomu aadama war a war a bàyyi xel la xalxalaa insaani fi ahsani taqwiim bi ci bind bind bu bu rafet ci ci ci melokaan wu kawe jëkkeen woo xam ne it nag mu jub woo xam ne doomu aadama bu doon bind boppam wala keneen du ko bind duñu ko mën mukk ndax duñ ko sax capable mu ni xalxal insaani mutasifan bi ajmali وأشرف وأكمل وأحسن الصفات وعز الصورة وانتساب الخامة وتناسب الأعداء وأبدأ الخلق nga xool doomu aadama lépp rek lenn lu ci nekk yàlla fi nga ko placé nga xool fi mu placé bu bët yi waaw gis bopp bi nga xam ne daanaka mooy mooy mooy mooy internet bu mag bi mooy net bu mag bi bopp bopp bi fi mu ko yàlla placé bu nekkoon ci suuf rek day ñaaw nga gis ni mu ko placé ni yàlla placé bët yi ni mu bakkan ni mu placé gi ak nopp yi soog a wàcc mbagg mi wàcc loxo yi ba ci tànk yi nga xool ni mu bind mbindeef yeneen yi ci des xar yeeg bëy yeeg nag yeeg ak jaaneeg yooyu moo tax doomu aadama bu dee jàmm yàlla bu dee julli ñu ci bari ñoom pour ñoom defe nañu julli allahu akbar asalaamaaleykum kese alors que dafa am looy symboliser sa digganteeg sa borom. julli doomu adama mi ngi wax waaye waaye am na am na beneen beneen xaal boo xam ne ni ma nga cay ma ma nga cay wax ak borom bi subhaanahu wa taala te dañuy lisaanu maqaal lisaanu xaal asdaqu min lisaanu maqaal xëy na allahu akbar yi saar yi nga jàng fatiha bi ruko yëg sujjóot yi sàbbaay yi nga ci def ba ba ngay sëlmal doomu adama yi loolu lay yëg loolee jàpp muy julli waaye li muy symboliser mooy xoolal hygiène bi nga xam ne moom nga jëkke dem ci toilette yu defaru ba set wecc doyoon na nga ñëw jël si satala jàpp jàpp sell bala nga sangu sangaayal faral sol yére yi nga gën a sob yi gën a set dem ci barab bu set nga laal si jàmm taxaw jubul penku ni allahu akbar kon bu médecin yi ne dina raxasoo saabu walla gel ñu may tudd ci ci yenn yenn circonstances yi joxante bi ñu joxante loxo moytandiku it loxo buy dem ci gémmiñ loxo buy dem ci bakkan waa muy dem ci bët yooyu yëpp sunu entourage nay set yëre yi sunu yaram nay set sunu kii day set ah. te lislaam yow set amul jaamu yàlla booy def loolu set lay jiital waaw ci façon bu ne nag set lay jiital set ci wàllu baatin set ci wàllu zahir set ci wàllu baatin set ci ñaar la jàpp mi danga koy def àndul ak saabu du am jàmpe nga sangu si gaali farata du am saabu du am jàmpe bokk la nag sangu bi ngay sangu nag mu am saabu bu am jàmpe nga tegaay loolu ñaar la mu am benen set bo xamne ni te mooy baatu astafurlaa bi la yàlla di wax lo xoola jekulu bi ngay jekulu bakkar yi xoola yàlla fi mu jaarale doom adama ci walu set ci walu hygiène yoy yëpp kon buñ dem ba li xew wurtu jaxal ben julli kuy doom adama rek nga xam li war na mën ne ndax li la l'islam sant so dem ba mercé sant la ko war kooku kooku da ko war wax sant do koy l'islam santoon na moom donc ko war wax nga xam ni kon eh ci kaw lolou la doomu adama di di di di xame waaw war a taxaw nag mu ni nag laqad xalaaqnal insaana fii ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala julli gi nga taxaw ni allahu akbar loy wax sa sa saxaal li symboliser moy ya nga wax yàlla ni ko yàlla di garab yaa ngi ni taxaw batima yi ngi ni taxaw montagne yaa ngi taxaw su la neexoon nga def ma garab ma nga def ma montagne ma nga def ma bâtiment yu yeb nga bindu ko ngir man loolu mooy symboliser taxawaay nga bolé ko nak lu sel ta hadra bi nga ne kenn du fa xolof wolof mu xadara yàlla kenn du fa wax pulaar kenn du fa wax français kenn du fa anglais akhu am nañ fay wax ba tax nga am bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 position boobu lañ moom leen ci leen yàlla bind soo leen neexoon nga boole ci ñoom nga bind leen ngeen man nga daal di sujjóot ñu nga sujjóotee yaa ngi ko ak jaan ak xulóol yeeg yooyu ku nga boole ma ci ñooña waaye yàgg leen bind ngir loo gis ci àddina rek dafa war a contribuer ci dund doomu jaan day contribuer ci dundu doomu aadama doomu xamul loolu nag til guno lepp lepp lepp luy insecte lepp lepp luy insecte lepp lu lu lu lu les animaux sauvages lepp lépp day contribuer ci dund doomu aadama xanaa kay problème bi moy lenn bu fekkee ñom jóge nañu falen yalla affecté déplacer wu dem fudul sen place fofu le problème di amee mu ngi mel ni doomu bu jógee wàcc andam rek dem bëgg tok ci benen loolu loolu loolu loolu lay firi su ko defé nak julli gi nga xol étape bi nga xamni mo moom la ko moom ko yàlla sédélé xol xal bi ngay waxanté borom bu borom taala légui nak néna la khad khalana al insana fi ahsan taqwimin binna naa adama ci bindin bu rafet te bindin bu rafet bi yu bari ko tegtali xol doomu adama ni muy doxee doomu aadama ngay lek doo boolem ba ba imi ak ak rab yi seen gémmiñ directement lañ lekk doomu aadama moom mu defa ko loxo defal ko ay tànk yo xamni ni gis nga limuy taxaway bi nekkul ñet nekkul ñet waaw te bari na mbindeef yu ñok doomu adama mais bokku ak doomu aadama mu tekte nak nag su asfala safili wul beuti ko nak doye dal ko delloo ko nak ci ci ak doye di fa fa fa fa doye di gëne gën a fa doye di gëne doye fa soufé gëne gëne soufé نديتها لعدم خيام لعدم خيام قيامي بموجب ما خلنا هو سودم با لتخيل بين التخوجة نحن تشوف قديم سودم نينكولان موني نخمم لم يعبدني جامو جامو سما سيتني جامو هما ما سيتني ويتو لما ما سيتني سمي خيول سنتكو ما خمني كيمم لما كده والجسكو كنا كده الله te kon te boo mu delloo nag yàlla nañ ci yàlla musal juróom minti waaw léegi nag delloo googu la yàlla delloo asfala saafilin nag am na yu bari maanaam mooy ila arzalil umri alxuraan mi ngi koy wax te arzalil umri moom moom alxaram baada shabab ne da nga nekk xale nekk sa digg ndaw nekk sa digg doole nga jékki-jékki rek nee na màggat ñëw ngay delloowaat nag moo tax borom euh, borom xam-xam ba di wax naan ak a neexoon sama ndaw ga dellu si ba ma ba ma xamal ko li ma ak mag def waaw li ma ak mag def ci télévision bi benn waay buy nettali di di di di conseiller xale yi ci seen jëfër-jëfër seen cëpp-cëpp seen ñàkk faale yàlla ñàkk faale waajur ah ñàkk faale mag ku leen mag ñàkk jox orma Euh, ku ñu war jox orma ñak jox orma place bo xamné ni war nañ fa euh, am place ah, mu am kenn ku ku mu ci tassel ma nga gétaru ma nga mel lu kenn xamul nee na ko woo ko mu ñoom ko mu ne ko booy wàññikul wàññikul waxin la mu ne ko wàññikul yow fi nga jëm man fofu la joggé dara dara am mi ko ko man jaaroon na ci ndaw yi ngay def yépp ma la ko gënoon man waye xam dem na ba xam ndekati yo du dar motax mu ko fa nga jëm فوفو لا جوغي دارا نيكو ما تخنو لولو دو دو خالي ورا خمنا نك بنو الهرم بعد بعد الشباب اضعف بعد القوه نينا بيغا بي كاتان غا خامن ديفا غاني دارا تيولا غا جيك جيك ريك نينا اك دوي دي نيو نياك كاتان دا دي نيو الفقر بعد الغنى لغا امون ييب نك باغا ديفون دوتو نياك غا خي خي بن بيس ريك اك نياك دا دا لي ديكان المرض بعد الصيام نينا غي ويرون bët yi leer bañ yi nopp yi di dégg nga xëy xëy benn bis pour nga gis rek problème la pour nga dégg problème la bañ yi pour nga lekk dara problème la mu ne nag a suqlu bala firaax amoon nga jot lool na amoon temps foo bëgg a dem dem fa foo bëgg a toog grand place suñu dara léegi nag dem nga ba ñàkk nga jot la ndax yu bëri feeñ na lu bëri mënatu ko nee naa nag nag almamaat baadal xayaat nee na nag dund gi nag nga dem nag ba dee fëgg na te fokk fokk nga ubbil ko nee na alxubuur badal xusuur nee na nag bâtiment yu rafet yi escalier yi nga daan yéeg ascenseur bi nga daan yéeg salle bi nga daan toog oto bi nga daan war neen yu yëpp nag jeex na tey li des mooy dem ci bàmmeel yi moom moo ci des moo tax mu ne su ma radallaahu saf saafiliin yooyu yëpp yàlla mi ngi tegtal doomam bu dee mu yàgg rek yàlla dillu si ko rek xamul ko ko nii la moo tax may ñaan toujours ni yàlla yàlla xamul nu boppam ci sago bañ ñoo xamal boppam ci ñàkk sago ndax xam yàlla ci sago mooy nga xam ko ci ay kéemtaanam nga xam ko ci ay tegtalam xam ko ci ay màndargaam xam ko ci ni mu bindee àddina ak ni mu bindee ay mbiram lu ci nekk rek boo ko càmbaree def ci ay recherche rek top boroom xam-xam yi ci nga xam yalla ci sago mais ñak xam yalla ci sago nak waxna ko kérok day lak sa kër dara du fa dess maar de tali yalla bu mu yóbbale ay bëkk fi xamul delu ci yalla rek mo fi sax febar ba mënoo yëkëti benn cër mënoo lek mënoo naan mbokk yi tim la jabar yi doom dara kenn mënu ci mbokk yi ku ñëw dal leen ci mënu dal su su waa yàlla doo nga fa foofu yooyu nit dana ci xam yàlla waaye nag ci ñàkk sa ko malgré ci lay xam yàlla kon eh, loolu lañu amoon ci luñ doon indi tey ci wàllu alxuraan du jeex sax ndax alxuraan kenn mënu ko jeexal su ko defee nag ñuy delluwaat leen gërëm di sant eh, di delluwaat di jégalu nag lépp lu ci jub rek yàlla barke alxuraan lépp lu dëng it nag ci euh, doyadi doomu adama la ñu ngi ko jéggalu et di ñaan it nag euh, yàlla defal ñu dégg ak topp euh, yàlla defal ñu xewal defal leen ko yàlla yëkkati leen nag fépp fu ngeen bëgg a àgg rek ni ma ko waxee ci yàlla yàlla yóbbu leen foofu foofu kawee seen jot asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa